bismillahi arrahmani irrahim ñu ñëw ci njàngalem sëriñ Tuuba ci juróom ñeent fukk bi ak ñeent mas nañuy génne ñu bari ci bëkk néeg yi nekkoon ci kër sëriñ Tuuba xaada lawo law maxtaar lawoo ngir seenu gël gu ëpp ba ñuy dem sëriñ bi wax ni Mbàkke Jaxate bokk ci siiw na am na ko sëriñ Tuuba xaada lawo law maxtaar lawoo masa wax wërsëg yi ñuy seddale ren saa boroom xamal na ma ni bokkoo ci siiw na wa qaddara fiha aqwaataha fi arbaati ayaamin sawa lisaa'iliin sadaqallahu asim wax xam na weeru tam xarit wi mu làqoo la koy war a wax gis nañu itam xasiid ak hamsa sin munaaya ak munaaya hamsa sin ni ci loolu feeñe wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada la muxtaar la woo digle ñeenti rakka njëkk tisbaar bu njëkk bi nu jàng ci fatiha ak ayatul kursi bu ñaaree bi ñu jàng ci fatiha ak amana rasulu ba ca sarwa bu ñetteel bi nu jàng ci fatiha ak shahidallahu ba ca alxakim bu ñeenteel ba nu jàng ci fatiha ak xul ya ahlal kitaabi taala wi ba ci muslimun ginnaaw tisbaar ñeenti rakka bu njëkk bi nu jàng fatiha ak saarion ila maxfiratin min rabbikum ba ca muhsinin bu ñaare ba fatiha ak yastabshiruna bi ni'matin min allahi ba azim bu ñetteel ba fatiha ak ina rabbakumullahu ba ca muhsinin bu ñeenteel ba fatiha ak waskur rabbaka ba ca takku min alghafilin njëkk takkusaan ñeenti rakka bu njëkk ba fatiha ak laxad jaakum rasulun ba ca bu ñaareel ba fatiha ak xulu doxonlaax ba ca saarwa bu ñetteel bi fatiha ak xul ya ayyuhal bu ñeenteel bi fatiha ak lexlaas ginnaaw timis ñaari rakka bu njëkk bi fatiha ak kaafiruun bu ñaare bi fatiha ak lexlaas wér na lool loolu dana nu xamal ni yi am na ay mbóot yu ci nekk yoo xam ni moom rek moo koy xam waxtu wu nekk am na lu ca gën wallahu alam am na ku mas a ñëw ci Sëriñ Tuubaa xaadalahoo laaw maxtaarloo ni ko dama tiit dama jaaxle Sëriñ Tuubaa xaadalahoo laaw maxtaaralahoo ni ko lu la tiital ak lu la jaaxal mu ni ko daa am ñu ñëw ci man di ma jox seen bopp ak seen alal te mu bér ma ni fii ñu nekk mënaluma fi leen fi dara sakka ëllëg sëriñ mi ni ko seen alal yooyu ak seen jëmu yooyu bu ñu la ko joxee ana ci yëg mu ni ko yow képp laa ci yëg sëriñ bi ne ko yitte ju mu fa fekk def ko ca dana ñu leen dimbali daa di rëdd ay rëdd tomb ay tomb ca kaw rëdd wa tomb ca digg ba ni tomb bii ma tomb ci kaw rëdd wi mooy yéen jawrin yi ay buntu ngeen yu jëm si ci man maa nekk nii ci digg bi looluy taalibe yi di joxe am neexal la boo xam ni dañu leen koy jox ngir bëgg a agsi ci man neexal boobu maa leen ko yéene moo tax ma teg leen ci buntu yi bu ma leen yéene wutoon neexal yi du ma leen teg ci buntu yi waaye képp ku leen gàllankoor ba téele na agsi fi man dana ñu lafa fa jéggi ñëw fi man ndax man rek maa leen tax a jug siiw na am na ku mas xëy ci Sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo suba teel di andi hadiya yu ko ay taalibeem jox sëriñ bi ni ko yóbbu ak yóbbante jetta teel a xëy cib ja siiw na ja mooy marché walaw alam Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo mas naa wax Sëriñ Mawlaay Busa radiallahu taala anu sama borom dama sant naa la berndeel daa di tàmbuli di andi lu nekk wér ñu ñëw ci njàngalem Sëriñ Tuuba ci téeméer bi Sëriñ Tuuba xaada lawoo law maxtaar lawoo am na ñu masa jox aw ñam ni ni leen ngeen ci xelu bàyyil ki ko defar lu mu barkeeloo siiw na Sëriñ Tuuba xaada lawoo law maxtaar lawoo mas naa laaj Sëriñ Abdullahi Jaane radiallahu taala anhu ni ko ñi ma fi jiitu woon ku ñu masaa na noppi ci moom nu ñu koy def mu ni ko dañu koy jox turu yàlla mu koy wérdu boo amee soxla ñaan ko ci sëriñ bi ni ko bu ñu ko meree nag mu ni ko dañu koy jëlaat mu dellu ca la mu nekkoon sëriñ bi ni ko accam man képp ku ma gërëm dama koy def mu diw tur lu mu jurati mu diw tur siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralowoo nee na bu ngeen gisee ma di leen laaj seen alal ak seeni doom nit fu alalam ak doomam nekk ab xolam du fa jug te ku ab xolam jugul fi man du yàqu siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo am na ku mu mas wax seyaari way jur ba ma leen di boole saa borom rekk laa ci diisool waaye sant naa ci yàlla rëccuuma la ma ko doon defe ndax wal baladu tayibu yaxaruju nabaatuhu bi isni rabbi weer na sëriñ masamba faati ak sëriñ maylaay mawlaay busa radiallahu taala anhuma bi ñu ñëwee ci sëriñ tuuba xaada lowoo law maxtaara lowoo daa xëy wooleen ni masamba yow man nga dikk dellu te mawlaay moom jekki siiw na sëriñ tuuba xaada lowoo law maxtaara lowoo bu daan waxtaan ba sëriñ mawlaay ak si radiallahu taala anhu da topp sil nii yow li may wax danga ko mën a dégg wér na sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaaralawoo mas naa wax sëriñ mawlaay bu sa radiallahu taala anhu ba xowumaag dëkk kenn waaye nooy dëkk daa di rëdd nañu ko defal fii ab néeg am na ñetti fan kenn defarul néeg ba ba mujj ñu ñëw ci sëriñ bi ni ko nee na daa bëgg a dem ca mbokk ya xëy na taalibe yi xer gu ñu xer ci kenn bañ a bokk ak sëriñ bi moo tax ñuy wax loolu sëriñ bi woo ko ni ko da ngaa bëgg a dem ca mbokk ya mu ni ko déedéet sëriñ bi ni ko fere yi noonu la def looleen wax ñu wera ngi ko waaye demal ci néeg bee mu dem fa am fa juróom benn weer yoo xam ni bu guddee sëriñ bi da koy liggéeyloo ba mu guddi mu ni ko tëddal fii siiw na sëriñ moo Busa radiallahu taala anhu mas naa yónnee ci sëriñ Tuuba xaade lawoo law maxtaar lawoo ab gàtt ak i way ak hadiya yeneen sëriñ Maylaay jox ko sëriñ bi ni ko boole na ci ab gàtt sëriñ bi ni ko bay bay bay la am xar mu ni ko béy sëriñ bi ni ko ndax manees na ko wecciku mu ni ko waawaaw ba mu ko defee sëriñ bi ni ko téye ko fa sa kër danaa la ci wax dara ba bisu màggal gi dikkee sëriñ bi ni ko demal defar ko ci sa loxo bopp te boo koy def na mel ni maa koy defar sama bopp daa di koy jox ñetti tur ni ko na leen ko jox ba mu noppee ba ñëw sëriñ bi ni ko bis bii bu dikkatee yéen ñépp na ngeen ma ci santale yàlla subhanahu wa taala ndax lu ma am ci laa ko amee yéen itam lu ngeen am ci ngeen ko amee mooy yow mu axsil jazaa'i la ma liggéeyal sama boroom lépp ci bis bii la ma koy faye ne xam àjjana jant bu fenk ak bu so xew fa waaye saa bu bis bi delsee waa àjjana danañu leen yokki xewal wér Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtarlawoo nee na ëllëg yawmal xiyaamati kenn ku nekk sa baggu teefu adduna da nga koy andi joor nit ak jinne ak malaayika ñëpp teg ci seen bët ba ma xamee loolu laa jël alxuraan def ko muy sama pàggu téef na lool Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtarlawoo nee na tubaab bi bu ma leen santoon jumaa ji ñu defal ma ko waaye li ñu ma koy jaaye jëralu ko muy sama diine ak sama ngor siiw na ñu ñëw ci njàngalem Serigne Touba ci téeméer bi ak fukk sëriñ Touba xaada lawo lawo maxtaara lawo am na ko mu masa jox ndab ba mu ko ubbee mel ni da ca gisul ndawal mu mel ni ku koy laaj sëriñ bi wax ni nañu defar ab gàtt defal ko ci ndawal ndawul ceerno la Serigne Issa Dieng radiallahu taala anhu mas naa andi machine buy ñëw ay yére ci Sëriñ Tuuba xaada lawo law maxtaara lawo ànd ak koy ñaw ngir muy ñaw sëriñ bi di ko gis ba mu mu ñawee ñëpp di ko yéemu ba mu noppee bay dem kookee doon ñaw ay bëtam gisatul ba ñu ñëwaatee ci Sëriñ Tuuba xaada lawo law maxtaara lawo mu ni yéem gi ñu ko doon yéem la daa di kanamam mu daadi di gisaat siiw na loolu mooy gàttal gi sëriñ bi wax na aousu billahi min shari am na nettali boo xam ni daa mel ni waxaale wuñu ci loolu wallahu alam sëriñ tuuba xaada lahoo lahu maxtaara lahoo mas naa jox sëriñ isa jenn radiallahu taala anhu xaalisum ngal ni ko tëggal ma ko ay saatu deflu naa ko ba tàyyi waaye ku ma ko defloo bu saatu yi yegsee dana ma xamal ni wàññi nañ ko wa illaa yokk nañ ko te bëgguma ci leen ba ma ba ko andee Sëriñ Tuubaa xaada lawoo law maxtaara lawoo ni ko saatu yi neeñu yokkuñu leen wàññiwuñu leen xam nga saatu yi lu ma koy doyee su ma jugee di liggéeyal rasulullahi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi seytaane day jël ay buum di ko sànni sama digganteeg moom ngir dog ma saatu yi laay doge buum yi ngir yegg ci liggéey ba siiw na loolu war nañoo xamal ni liggéeyal yàlla subhanahu wa taala yombut gis nga sëriñ bi fi mu toll te teewul saytaane di ko sànni buum wallahu alam saatu yi sëriñ tuuba xaadalawoo law maxtaarlawoo mën na cee jox benn sëriñ Mbàkke jaxate radiallahu taala anu ni ko wan ma te bu ci wataan mbindeef siiw na ba tey noo ngi ànd ak sëriñ bi ci ay waxam ak i saa sunu gisee ci waxam wala jëfam luy nuru lu wuuteeg li ci téere yi nee na bu ko roy ca loola ndax daa am ay jagle wallahu alam sëriñ tuuba xaada laho llahu maxtaara laho mas naa wax sëriñ aafiyatu ñang radee llahu taala anu ndax xam nga ku bind téere bi mu ni ko déedéet fekk muy téere maarot sëriñ bi ni ko sabaay moo ko bind ci loxoom sëriñ habdu kumma ñang radee llahu taala anu ba ma koy jàng ci sëriñ moor ante sali radee llahu taala anu sama mbokk yi dañu ma doon ree naan sëriñ daal moo bari solo xam na ni moos mënta xam téere bi am xelam àggu ci fàtte ni yàlla mooy maye ba ma ko tàmbalee ci sëriñ moor radiallahu taala anu ay fan mu tawat ma daal di di ko yër sama boroom di ma ko xamal ma di ko yër ma di ma ko xamal ma di ko yër ma ma ko xamal ba mu jeex bi sëriñ moor feexee ma ñëw di ko seet si mu ni ma alhamdulillahi feex naa bu baax dara mettiwuma dara mettiwuma ci tawal ji lu dul seen alluwa dog ma ni ko maa ngi doon yér ba xam naa ci aslaf mu ni ma sëriñ ku la ko doon xamal ma ni ko sama boroom mu ni ma ku la ko xamal ma ni ko sama boroom ba muy ñetti yoon mu ni ma baax na daa génn dem ba ca ginnaaw kër ga woo ma ni ma kaay wax ma ni la sa boroom xamal ma di ko wax muy dégg ni ma ko yàlla xamale ba mu jeex bàyyiwuma ci dara mu ni ma sëriñ wax ma ku ko xamal mu ni ko sama boroom ba muy ñetti yoon mu ni ma rikk lii bu dugg benn nopp budul samam nopp ak sam nopp wér na bismillahi arrahmani rahim barke borom tuuba ñu ci sëriñ tuuba akum njàngaleem ci téeméer bi ak fukk ak juróom Sëriñ Tuuba xaadalawoo law maxtaaralawoo mas naa war aw fas Sëriñ Gaawaan radiallahu taala anu topp ci ginnaawam jàpp ci génnu fas wi di daw léeg-léeg mu jàdd ci ak ker noppalu jigaat di daw ba romb am màggat mu ni ko taxawal gis nga kii ngay topp ndeyam ak sa ndey ñoo daa jokkalante ay baat nga topp ko mel ni ab jaam mu ni ko jaral na ma daal dawaat toppi Sëriñ Tuubaa xaada la law maxtara la ba mu agsee sëriñ bi laaj ko mu wax ko sëriñ bi ni ko boo ko waxoon lu dul lii fii la ñuy tàqali ko wér na sëriñ Moor Anta Sali Kan radiallahu taala anhu bi muy bëgg a làqu daa woo Sëriñ Tuubaa xaada la law maxtara la di ko dénk boppam sëriñ bi ni ko fii ba foofa doo fi loo ragal doo jàq doo tiit wér na sëriñ Mañaaw Silla radiallahu taala anhu bi muy jébbalu ci sëriñ Tuubaa xaadalawo la maxtaarlawo sëriñ bi santaane nañu rayal ko aw nag am na fa ay weer sëriñ bi ko toppaloo ay kaamil siiw na sëriñ tuuba xaada la wallahu maxtaar la woo mas naa wax sëriñ ma ñaaw silla radiallahu taala anhu ndax fàttaliku nga maag yow ba ñu àndee di taxan ca daara bisub ajjuma la woon ba julli jotee ma ni la ñëwal nu julli booba laa jàppoon te man duma jàpp luy deñ tunnu mbaakol wépp nee nañu kaang foore nga mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko alxuraan ñaata maska mu ni ko xamuma ko sëriñ Tuuba xaadala wala maxtaloo ni ko ñetti maska la maska yat maska néeg lonk maska yat gi mooy jullit ñi maska néeg gi mooy yéefar maska lonk gi mooy naafeq moom la yonte bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallama di xëccoog iblis bu demee cat li mu doon maska yat bu ko iblis àggalee mu doon maska nekk bi mu jébbaloo Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaarlawoo nee ko lala say taalu be nanguloon dongab daara baaxoowu ko nangul ab sëriñam maa ko fa def siiw na loolu mooy gàttal gi walaahu alam am na weer woo xam ni ba mu feeñee Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtarlawoo daa wax du weer seytaane la am kilifa gu wax ni loolu du ko teree woor daa di wax ni ki wax lii bu fekkee moo ko wax dana ma yónnee ndog Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtarlawoo ni ana diw xanaa woor na ñu ni ko waaw mu daal di ko yónnee ndogu siiw na loolu mooy gàttal gi xol kullun yaamalu ala shakilati ku nekk fa ab pas-pasam toll fa lay jëfe na luy farlu na nuy farlu ci jàng xasida yi danañu yokk sunu pas-pas ci sëriñ bi lool wallahu alam sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo mas naa wax kenn ci doomam ñooñu duñu lekk sarax ñetti yoon loolu dañuy xamal ni ñoom hadiya wala leneen lañuy jëfandikoo daa mel ni hadiya ak sarax li leen wuutale ci ni ma ko gisee bu dee hadiya ki koy joxe da koy joxe ngir sàkku barkeb ka mu koy jox bu dee sarax nag loolu du ci am kon hadiya ku la féete kaw ci saahir nga koy jox bu dee sarax koo féete kaw wallahu aalam sëriñ Tuuba xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo mas naa jox am naar xaalis bu bari toog di xaar neen lu ñëw ba mu joxaat ko nes am naar bu aksi bu rafet lool te leer sëriñ bi ni may leen ma ma gisee sama gan gii ba ñu demee ba ñëwaat sëriñ bi ni leen xam ngeen ki fi jóge léegi ñu ni ko déedéet sëriñ bi ni Seexu Abdul Xayaadiril Jaylaani yu la radiallahu taala dafay ñëwoon di ma siyaar siiw na loolu dañuy xamal loolee mu wax ca way wa xawaytu min albaaqi munan faaqatil muna wayan xaw janaabi li ziyaarati xummadu wallahu aalam Sëriñ Tuuba xaada la wala maxtaar loo am na lu mu doon liggéeyloo kenn ci taalibe yi am keneen ku ñëw bëgg caa barkeelu sëriñ bi ko Mor Talla Fall mii laa ko sant siiw na wala loolu mooy gàttal gi kookee Cheikh Ibra Fall la woon radiallahu taala anhu wallahu alam am na ku Sëriñ Tuuba xaada la wala maxtaar la masa wax lu la jële fa nga nekkoon mu ni ko dañ ma faa tam mel ni di ko tooñ sëriñ bi ni ko fii yaa tam sa bopp boo yeboo dellu fa la tame siiw sëriñ tuba xaadalahu allahu maxtaar laho bi mu jugee jolaf jëm jaareem ci yoon wi am na fu ñu fanaan moog sëriñ aafiyat nu ñang radiallahu taala anu ñoo bokk benn néeg bu ñu fanaan ba mu nelewee ba sëriñ bi yëngutu mu jug toppatoo satalaga sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaaloo ni ko da nga doon nelaw mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko man sama yet sama bati biig yaa ngi nii loolu mooy nelawuma waaye kaay ma wax la boo bàyyee ba guddi gi sori nga gu génn jàkkaarloog biddiw yi jàng ina fi xalqi samawati wal ard waxtilaafi layli wa nahaari la ayatin li ulil albaabi ba ca saar wa da am yoolu ku fanaanee naafile siiw na loolu xamal nanu bu wér ni sëriñ bi du nelaw ba tey xamal nanu baaxuk sunu boroom subhanahu wataala ak laa bi rek sëriñ bi su ko defee képp kuy def lii itam war na di teel a yeew te julli gee ak suba ci mbooloo loolu ba tey day taxaw taxawaayu dundal guddi gi ni mu ñëwee ci hadis te nuy moytu waxi caaxaan mel na ni képp ku koy moytu tey jàng xasida yi borom Tuubaa xaadalaw la maxtaaloo sag dundu du bari lu ci neen wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaadalahoo law maxtaalahoo bu daan dalal kenn day bind bismillahi daa koy maas siiw na mel na ni am na nettali yoo xam ni bismillahi rahmaani rahim lañu wax wallahu alam am na ku mas a andi ab kaamil ci Sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawo mu ni ko xanaa da gis Ibra Faal mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko moo xee bari siiw na li ko waral da koo romb mu fop aw juróom dugal ko ca biir kaamil ba wallahu aalam Sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawo bi mu nekkee gànnaar am na bis tubaab bi mu nokkaloon sàkku ci moom taaluba yi defaral ko am néeg ba ñu ko defaree bay ko xadd mu ñëw yorop yaram naan gaaw leen am ci taaluba yi koo xam ni ay bañam daa génn mu gis ko moom tubaab bi defe ni da koy reetaan mu di ko door ba ko sëriñ bi yegee bay ñëw tubaab ba daw booba sëriñ bi mu ngi bokk jaasi Serigne Touba xaada la wala maxtaaloo ni gis ngeen ko ni mu ñàkki jom daa defe ni dama leen di wax ngeen def ko dara moo tax mu def nii mu def waaye kaay leen dama leen a bëgg a wax tey jii ay wax yoo xam ni bu ngeen ci tegee seen bat ni ma leen ko waxe na ngeen xam ni ëllëgati si biir lu ba leen waxati lu mu yàgg-yàgg noonu lay demee ginnaaw lii diir bu gàtt tubaab bay yónnee ci sëriñ bi ni da koo soxla ba sëriñ bi demee ba del si indaale aw këyit wuy xam na ni mën naa dellu ci réew ma loolu bisub gàmmo la ci yoon wi lañu gàmmoo ba ñu ñëwee jolof diir bu gàtt kookee tawatoon daa di faatu ba ñu ko waajalee ba teg ko Sëriñ Tuuba xaadalawoo la maxtaloo taxaw ci seen kanam wax ni wa ida saxara al ilahu unasan li saidin fa innahum soadaau fàttaliku leen la ma leen waxoon daal di cey jaaraat loolee ba ma koy wax fekk na kii ruugi tàggu woon na ma ba noppi wax ga wax loolu te setteewuma moo taxoon mu nekk fi ba tey jii nga xam ni ñëw nañu ba agsi lépp lu ma leen waxati mu nekk ci seen kanam ne leen wóor ni nii rekk lay deme siiw na su ko defee loolu ma andiwul daa ñëw ci beneen nettali moo tax diyeer téere yépp du mën a ñàkk ci ko xam ni daa bëgg a bëri ak xam ci sëriñ bi wallahu aalam sëriñ tuuba xaadaloo la maxtaaloo nee na laqatu du tee yàlla gis la wér na wallahu bima taamaluuna basir inna allaha la yaxfa alay sheyun fi l ardi wala fi samaai wallahu alam am na ku masa andi sëriñ tuuba xaadaloo law maxtaaloo kaamilub sëriñ cumbuleen radiallahu taala anhu ni ko moo ko bind sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaaloo ubbi ko ni ko moo ko bind mu ni ko waaw sëriñ bi ubbi waat ka ni ko defe nga ko mu ni ko moo ko bind ba ca yoonu ñetteelu sëriñ bi ni ko wax nga dëgg de moo ko bind yàlla rek ka dul juum wér na laa yadillu rabbi wala yansa xëy na daa soppiku ba wuute yeneen mbindam fi mu ne bu nu loo xam ni mbind yi day soppiku lool ni jëmm yi di soppi dana dem ba àgg foo xam ni dootul soppiku jëm kaw ci ak rafet wallahu ahkam wa alam ñu ñëw ci njàngalem Serigne Touba ci téeméer bi ak fanweer Serigne Touba xaadalawoo law maxtaaraloo nee na ku mën a matal ay farataam te sax ci njub tey jox addiya mooy murid bi ma gënal ku mënta matal ay farataam mënta sax ci ak njub mënta joxe addiya may naa ko addiya ja waaye faw nay sax ci ak njub tey matal ay farataam siiw na sëriñ bi dañuy xamal ni nuy àndeek moom loolu mooy taxoo lislaam di ko liggéeyal te moo di di ko jox sunu kem kàttan mel na ni ak jub ni mu taxaw fii mooy bàyyi tere mel ni jëw ak fen ak rambaaj ba jikkoy jeex wallahu alam am na ku mas ñëw ci Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo ni ko damay mag te sopp la lool bëgg kuma ma dénk bu gàtt te amal ma njariñ Sëriñ Tuubaa xaada lawoo laaw maxtaar lawoo ni ko jigasil yaa ngi may dégg nit koo gis bu ko tooñ ngir yàlla mi ko bind ko la tooñ jéggal ko ngir yàlla mileen boole bind yaa moom bul mer li feeg gisoo kuy def lu naqari sunu boroom te mënoo ko saafara mokk na mu ni ko waaw Sëriñ Tuubaa xaada lawoo laaw maxtaar lawoo ni ko boo ci saxee loo bëgg danga ko am siiw na bokk na ci tooñ jëw ak rambaaj ak saj ak wor ak naxaate ak lekk alal te xolam seddu ca mel na ni limu ko mujj wax faawu loolee da koy jiitu fawu dangay ngay sell bu wér door a am darajay dimer ngir yàlla subhanahu wa waaye li fekk am na looy def ci tere yi doo mën a am yi di mer ngir yàlla subhanahu wa taala wallahu aalam sëriñ Modou Cissé ak sëriñ Moor Mbay Cissé radiallahu taala anhu mas nañoo siyaar si sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaa lahoo sëriñ bi ni moor de li nga fi waroon di def Modou Cissé mi ngi koy def ba mu delloo la daa di si njaareem siiw na sëriñ Fallu ak sëriñ Muhammadul Mustafa ak sëriñ Mor Roqiya Busa ak sëriñ Masamba radiallahu taala anhum sëriñ Tuubaa xaadalawo la maxtaar loo mas na ngeen a wax bu ngeen xëyee na ngeen jàng faatiye fanweer yoon bu tisbaaree ñaar fukk ak juróom bu takkusaanee ñaar fukk bu timisee fukk ak juróom bu fukk muy téeméer ñu ne ko waaw siiw loolu ab dog la boo xam ni bari na lool ay mbóot bokk na ci danga am xéewal yooyu mën a dimbali ko ci jaamu yàlla subhanahu wa taala kuy tooñ wala mu yàq itam dalay ragal mel na ni imaamul Xasaali radiallahu taala anu way na mbooleem njariñ yi ci nekk sëriñ Saalihu radiallahu taala anu daana ko jëfandikoo daana ko joxe itam wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada la lahu maxtaar lahoo nee na adduna day soppiku nu mu soppikoo te dug mooy yàlla nu ngeen ca ànd moom si ngeen ko deful dana jaar ci seen kaw jàll te du ngeen ko mënal dara siiw na loolu aajana nu xool lan mooy adduna adduna mooy nit ñi ak li ñuy am ci saayir loolu nag bis bu nekk ak weer wu nekk mi ngi soppiku ndax bis bu set nu gis lu génn lu nu mësut woon a gis moo xam ay yére la walla ay dàll wala ay oto walla yeneen su ko defee lu nekk ci nanu koy xool bu nu bëggee jaamu yàlla bu nu gisee muy wàññi sunu jaamu nu bàyyi ko naka noonu bu dee waral ak mooy ci misaal rajo ak télévision am na yu ci mën a waral xool lu xaraam lo warta gis wala nga diglu jaw wala nga neenal waxtu wo xamni mënon na jëm ci lu baax wallahu a'lam